Gabon Production ak Darou Minane TV les meilleurs dans les besoins de la population sénégalaise. Serigne Cheikh Mbacke solution la ñuy wax te solution nag lu doy waar la da koy maîtriser sax doo ko mën opération solution da koy maîtriser doo ko man opération. yow ñu tuddee la Cheikh Mbacke solution bëri na lu lëj nga lijjanti ko bëri na bu làng daaree yow dawoo nit ñi li fi daje ciy géwal bëri na buntu kër ñu daj gisuma ko fen te géwal nag dañ koy géwal géwal nag bul jàpp na koy géwal rek muy wax teraanga ci nit sax da koo géwal ndax ku amati teraanga dootoo wéet te géwél bu ko géwél ay bokkam rek la bëgg bu ko amee rek ay bokkam fekk si ko tey gis naa ne géwél yi ragalun la ñi ma gisul woon ñëpp gis naa leen fi nga bëgg lu baax bëgg ñu baax ñi ñëpp dëgmal la ku ñëpp dëgmal nag am na lu xew damaa wax léegi ni Seex ma Masamba waxuma ngor gi waxuma jom ji waxuma juddu bi mu juddu waxuma loolu waxuma sëñ Tuubaa mi nga xamante ne mooy baayam di magam yar ko waxuma loolu waxuma sëñ Mor Anta Sali mi nga xamante ne moo am taaw bu baax am caat bu baax waxuma loolu waaye li mu nu Seex Moustapha bàyyil ma faatu ji nga des fi des des sa liggéeyu mag sa baay bi rek waroon naa tax loolu nag na ko murid di xam na murid xam ni bu Seex ma Masamba bàyyi woon Seex Moustapha dem dara duñ jar ndax sëñ Modou Moustapha rek moo na wut sëñ Touba te loolu sa maama ko te nag sori woo ko dañ naan sëñ Moustapha rek nga sëñ Masamba sëriñ bii nag dafa wax moom ca këram ni Seex sëriñ Seex Mbàkke sama xarit la bu yàgg te moom bëriwuma lu mu ko lu may dégg mu koy wax ndax moom dafa am nu mu bindoo mën naa lekk mbiskit ak meew tàmm na ko boobu toggul xalifa baayam baayam nekk na fi kër ga nuy rey xat yi muy lekk mbiskit ak meew bu ñëwee baayam du mooyu ko mu dem këram lekk mbiskit ak meew dama leen di wax ni ñoom li tax ma bëgg leen Mbàkke jamono bu nekk dama wax naa leen ko barki dem ni la keroog ba sëñ Mamor say jaxate wàccee liggéey ñu koy ñaanal da nga maa romb ak sa oto taxaw yëkkati juróom benn junni ni ma am ma ne man sëñ bi lu may teral te waxaguma gisaguma ko sax man munu ma ni nga def suñu Abdou Aziz ni nga def sa doomi sëriñ ji loolu laa la bëggee moo tax ma teral la bi ma ko nuyoo léegi daf ma ni lii laa la bëggee xam nga mbàkkeel tax ñi du ma leen bàyyi seen bàyyi daf ñu daan jox yére yi bàyyi leen ñu def yaramu neen seen bàyyi jox ñu des ñaari bàyyi leen ñu sol ay perkaal seen bàyyi tëral ñu ci lal noon yi bàyyi leen ñu tëdd ci ruum bi seen bàyyi cinam la lenn cin la woon boo gisee kii lekk ci suuf booy jarul ngay yéeg ci kaw moom moom la sëñ bi xewloo ñu gën leen a jege mu mënuñ jox xaalisam ba takkal moom ma takkal sama awo ngénteel ma sama taaw takkal ma ñëpp ngénteel ma ñëpp seen baay kon bu fi jógee bu dee gor lu toll ni tarafetal ay ni war na leen téye ñi ñoo ma gënal ci dënd bi waaye kii nag moom dafa murite fi ne fi nga ko bëggoon a teg du fa toog mukk ndax day bañ a weddi boppam bàyyam dib naar dib sërif yonent bi maam mu jaay ko jënde ko taalibe ba noppi nag royul ñu fi nekk ñi mu ni Seex Rafaal lu leen def seen bàyyi leen ko yóbbu seen bàyyi def ay naar ay bàyyi faal leen def bu sëñ bi toogoon ci kaw rek bu génne ñu ñun luñ doon moom direct yonent bi la yor waaye bàyyam da koo jaay nag loo jaay moomatoo ko te jaral na ndax Seex Ibra Faal fay na ko démb la yóbbu addiyaam ci ci Seex Ibra sëñ am ni ko defal sa bis ba ko daan defee bis ba nag ñaari pàcc la guddi gi la mag ñi ñëw ñëw ci ngoon gi ngone yi àndandoog mag ñi ñëw ci guddi noonu lay demee de ndax kii daa am ndigalu def ko kii am ndigalu def ko ñaari ndigal la sa jarbaat bi daa am ndigalu def ko ndax baayam dañuy dafay jóge kii moom day yeggal liggéeyu baayam waaye kii nag baayam a ko day def ndogu yi am na avant première boo xam damaa wax ba noppi fàtte ndogu yi baayam ma dóor ci tànkam sama ndigg ma ges ko mun ma waxal ndogu yi suñu murtalaay yi kon kii moom ba àdduna tukki day def ndogu te moom amul dul yéen te yéen amul leen dul moom kon ndogu ren mbàkke daa war a xumb waaye nag ñaari yoon ngay ñëw nag waaye ba nga xotti ñaari xotti xotti bi ngay sol ci ndogul yi bokku la xotti bi nga ñëw ànd ak sëñ Abdou Aziz ndax bis ba kenn ëpp lawula ca nag xam nga lu tax sëñ bi man maa ngi doog ko dégg mun diw sama xarit la barke maam Cheikh Rafal Abourou Diall te nee na xaritam nga kon da ngay ñëw sa jarbaat bi waroo warut a wéet ndax soxna bi seex toog Cheikh Moustapha waaye kii nag day sa xarit warut a wéet ndax Sëriñ Abdourahmane sa do day sa doom bàjjet ndax sa bàyyi nijaayam asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ñu ngi yëkkati kàddu yu sell yu bàyyi ko ci sëriñ seex Mbacke moom sëñ Moussa moom Cheikh Massamba jëm ci wëllërey boppam yii di njabootuk boppam te ki ko jiite di Serigne Abdou Aziz Fall moom Cheikh Abdourahmane Fall ci laa la ànd ak rakkam yu baax yii muy sëñ naa Fall di jarbaatam ak sëñ Mourtala Fall di jarbaatam ak sëñ Youssou Fall mii di jarbaatam nu ànd ak jëwriñ ngañ ak Serigne Talla Niang xasida ak mboolem ñi ñu àndal xam naa bala maa wax kàddu yu jëm ci sëriñ bi sëñ Cheikh daf ma ni ngañ moom nee ko lenn rekk laa ko bëggee mooy kenn ku ne damay bëgg fi la sëñ Tuubaa boole nga xam ko te téye ko te moom jàpp na loolu. nee na moom sëñ Cheikh day faral di wax ne sëriñ ak murit bokkul nee na moom mii bëgguta doonu sëriñ murit la bëgg a doon te taalibeb sëñ Tuubaa it la bëgg a doon nee na xëccuwul dara bëggul dara soxlawul dara du doon ak taalibe nee na moo tax ku mu gis ngay xëntewoo di wane pas-pas ci sab sëriñ. day mel ni loolu moom nga ko defal ndax asiddu ko la sëñ Tuubaa wax fi mahabbati cheikhi abat somti saali am ri xeesul warat wa tarku lixtiraat mutlaxan wala baati alay fi maar raaw wa maahu salabil xiyaar li ko ni sanni bi laay inkaar yi mooy bëgg gi te muy dëgg ci yow lu sëriñ bi wax na la lu mu def te sa xel nangu ko ci saayir yow bul nangoo gis loolu bu bi laa inkaar yi nag bu sëñ bi ne jant bi mu ngi génnee ci sowu bi te mu lenn penku bi la génnee nee ko mi ngi ci sowu bi du gaaral du xalaat du lijjanti te nee na noonu nga àndeek moom li tax mu jàppale it maa toog moom ca parking ba ma ni ko man de poroxaan laa ne ñu ne ma ngañ buub ci bunt buntu bàmmeelu Serigne Abdourahmane Fall Tilala la la joxee boppam Serigne Abdou Aziz daan ne gaa yi ñëw leen jaayante keroog bi ma ko waxee loolu daa jékki-jékki moom yi tekk bee rangoñ yi tuuru moom ab murit la moom seen nijaay ji barke xaadim rasul ab murit la waaw kii moom sëñ Touba lay dund moom moom ak taalibe lay dund pas-pas lay dund pësteef lay dund sëñ Seex bëggul dara lu dul sëñ Touba moo tax bu gisee maanaam yëngatu ko Baay Faal ak ak di dox ci sëñ Touba ba ko la xool xam ne ab murit nga moom dalay bëgg moom foofu la nekk te cofeel gi nga xam ne ëmbal na ko sëñ Asis mii loolu yàlla rek lañ koy seereel ak sëñ Touba bi cofeel gi amee ba noppi ak ñeewantal ak yërmande gu rëy da koo da koo lal nee na nag kon Faal mi ngi lay sant la gërëm di la ñaanal. te nee na nga xam ni daal nanga doxal rek te xam ni dara soppikuwul day mel ni sëriñ Sëriñ Abdourahmane daa ne ci néeg bi nga toogal ko ci buntu saal bi nee na li fi ne woon jugu fi lépp ngi fi nee na mi ngi lay ñaanal yàlla dëgëral la yàlla kàttanal la nee na ab xalifa nag ku ko ne yàlla na yan bi oyof lu ko dal yàq ko teg nee na na diis gann na gën a diis na gën a rëy waaye kii tiin ñu nag ba tax doo ko yëg te moo mooy sëñ Tuubaa yàlla na fa dugal ay loxoom te te te la ko sant na la baax gërëm na la bu baax jarbaati boppam yi tamit jarbaati boppam yi nee na moom it amul lu leen ëpp ndax seen yaay mooy jigéenam di ay doomi bàjjanam muy seen doomi nijaay kon ñuy ay jarbaatam lañ ko sës ci moom nee na mi ngi lay gën a dénkaat njaboot gi nga gën leen a uuf te gën leen téye bis bi nga xam ne ñu ngi koy jubit ñuy ñaar fukki fanu koor nga xam ni ku ko dégg sa xel dem ci Seex Rafal waaye ci biir Cheikh Ibra Fall googu ku dégg ñaar fukki fan koor ci ndakaaru sa xel dem ci kenn ku Seydi Abdourahmane Fall Tilala la moom mi nga xam ni daa bokk ci xar baaxi sëñ Touba li ma ne sëñ bi daan les faveurs que j'ai obtenues de mon Seigneur n'existaient pas dans cet univers c'est en cela que j'ai réussi inna lasi mi ne ilaay xustu xaaba anikonu fii mooy li nga may gis ci man ma rawee ko ñëpp diggante asamaan ak suuf bu ko xel di xalaat du ko daj ab sérif di sëtu rasulaay ba noppi di bàyyi faal sëñ Touba rek ko ko am Abdourahmane la tudd sant Fall ñu naan ko Tilala loolu nag xar baax la loolu daa bokk daa bokk ci mayi sëñ bi daa bokk ci mayi sëñ bi may yooyu nag sëñ Cheikh nee na yàlla na ko yàlla yokk yàlla na ko yàlla sàmm yàlla aar leen mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm li mu yéene woon ñu wax ko ak mu nu wax mën naa ëpp lii waaye sunu yéene rek la ñuy mottali kon lu ci dëng nga xam ne ci ñun ñu koy wax la waaye fa mu bàyyi koo mate na fa sëkk jërëjëf Fall. Moustapha sëñ Wassamba ni ma bëggee sëñ Abdoulaye laa ko bëggee day sëñ Kamal di Murid nit mën naa doonu sëriñ ba kamaal te du doon murit saadix nit mën naa doon murit saadix te du doon sëriñ bu kamaal sëñ Moustapha am sëñ ma Massamba murit saadix la ab sëriñ kamaal la mu meññ la nga am loo ko niru bëgg nit ñi fab sa jëmm dugal ko ci biir nit ñi ñi nga tane yaa ngi leen dimbali kon su ma duggee ci dëkk bi damay ñëw siyaar si la ngir sëñ Moustapha dëkk bi nag sa bàyyee ko moom ndax ñi ko jiitu woon di ay kilifaam moo leen defal nii dëkk bi daaru karim mbooleem ahlu kër ma sëñ Masamba amel nañ sëñ Moustapha Kent jumaa ji penc mii kër gii xabroom bii tax na gone yëpp ñeme mbooleem ko sëñ Masamba li sa maam fi mu ne am de euh, kër daaru karim moo la am am moo la gën a am euh, kër fu ne loolu nag sa waajura kii ma fi dajeel nag maa ko fi gën a xam moo kii ba may ànd ak seen baay ñaar fukki at laa am seen baay am ñaar fukki at ak juróom maa dim tofoom seen baay mbooleem commencé nan ci ñuy yëngu di sol garam boobu di kaalawu moo ci gën a na rafet ëpp ci wërsëg daanaa gis mu am 40 millions def ko ci malet di ko ubbi di ko joxe ba mu jeex mu takkaatu maletam jël avion tukki dem Abidjan tuubal fu lu ëpp ñaari junni nit ñu dugg ci lislaam di julli di wor di sàkk asaka di nattu murum koor kon su fi nekkee ba bis maam a jot mu ànd ak soxnaam koo xam ne sëñ ma sàmmaa meññ ndeyam fa buubu fay teg ci wetam yàlla ni leen fii laa bëgg seen mbir yem fi ñu yem fa sëñ Muntaxa gërëm ko rob ko ñaanal ko doomam ji jël mbir mi ànd ak i rakam di doxe nii sëriñ ab liggéey mi ngi wéy ngërëm li ma gërëm kii ca baas ma nag tey laa ko ko gën a gërëm lu fi nekk sëriñ fa waane nag kii bokk na ci ñi ko yokk ndax bu leen seetaanan ngeen tasaaroo li ngeen bëgg du ngeen ko man te fu mu toll andi leen jiitul yërëmal xele yi loo am jox leen rek lay wax saa yu ma dajeek moom maa ko war a soññ waan day mel ni dama soññ ci yow ñoo ngi ñaan sunu borom nga gudd fan man na maa giñ ci Serigne Touba li gën ci nit dal na la am murit nga ku woyofu xol nga ku tabe nga ku bëgg sa baay nga sa baay nag li mu yor moo ko moom kenn joxu ko ko ci Serigne Touba la jóge direct jaar ci moom ndax am na ñu mbokkal ndey ak baay ñëpp a baax waane murit gi ak njañ gi ak xër gi ak tab gi ak dox gi sa bàyyi ci moom ngeen ko jëlee maa ngi ñaan suñu borom ngeen ngeen ngeen juboo ànd ndax li ngeen war a am ñëwagul de sa bàyyi dund na juróom-ñaar fukki at yu manqué tuuti bàyyiwu fi birigub ciment bàyyiwu fi pàkk bàyyiwu fi kër lu masaam nit ñi la ko jox nit ñi la ku leen xontal yàlla boo wanee ginnaaw yàlla xont sa njaboot du ngeen tumuranke mukk te lii ma la wax nag lu ngeen gën di dem ci kanam gën a xam ni sërif lu masaam yàlla la ko jox bàyyiwu fi dara xanaa njaboot gu mu defi murit baa xamal ni nii mu def njabootam gi moom laay ñaan yàlla te amaguma ko jur ak njaboot kaar kaar ñu mat fukk ñëpp day murit ku ko am sab liggéey nangu na yéen ñëpp bàyyi faal ngeen bi ngeen di dugg ci tant bi ma gi dem ma di leen gis sama xol da doon jooy ndax wóor na ma ni fa mu tëdd bég na ma ndeyam bég na baayam bég na maamam bég na maa ngi ñaan sunu borom sëñ Cheikh nga yàgg fi am na loo loo niru sa baay lu ñëpp gis yàlla nga nekk moom ba si loolu ci dara yi sëñ ma Massamba barkab sëñ Moustapha ngañ maa ngi lay sant di la gërëm loo leen defal sërif nga ko defal waana man mii nga ko defal ñii ñëpp euh, euh, maa leen ngénte xam seeni ndey xam leen maanaam ñii man nanoo am lu ne ndax sërif mësta ànd ak nit ci sago gis nga ar ar ji mu nekkee woon ci sëriñ bi soxna su jël moom la àndee woon ak yow defalu leen dara lu lu mu am jox nit ñi bu toggee mu neex bu lakkee ndawal muy dibi ñu lekk ànd maa moom fukki at ak juróom mosu noo reere ci kër dibi ci rek bu reeree naan faataay dem tëri maa ngi moom daan bokk benn lal kon maa ñaan suñu borom mu yokki leeram fekk gi ma la fekk fi nag bég naa ci lool ah ndax fii nga bokk yow jërëjëf. Gabon Production Académie Médine TV les meilleurs dans les besoins de la population sénégalaise.